bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw laa bay wejji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko yëngal bay wejji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw seetaan kër wejji dem fa seetaan ko jar na lu ne ku fa dem di seetaan xoolal ñu seetaan te déglu lu leet ba waaw waaw tey ma way bay wejjeey waaw waaw bay wejji nee na vélo bi rek a ko ñor waaye ndeene doomi gewal la deretu gewal moo ko yëngal yow wax ma lii la yëngal ndeene gewal moo ko yëngal kër wejji ku fa dem di ree ba fange per wejji yaa bari feeling daal daraay daraay daraay ñëw la ko ngóob dara waaye dina xam ne nekk sama deret moom kenn mënu ma koo tere ah Balla gi daal dam naa ma jox joxutuma ko def dëgg yàlla toogaay bee yàgg nag toogaay bee yàgg xam nga ñaxtu ba noonu dem ca def ta Dakar moom noonu na maa dem waaye nag du ma dem dëgg yàlla moom ay liif moom dëgg yàlla xajuma ci ak i manché courant xale yi gone léegi moom amuñ kersa dara ci mag amuñ kersa baaxut baaxut lam naan ma jox joxatuma ko Balla gi lam naan ma jox joxatuma ko waaye waaw waaw waaw

xam naa rek gisuloo woo ngéwal de. dama ne li nga wax ni ba bëggoon pour ñu may la mango. Hmm, boo ko waxee Dakar ñu pàccal ay junni yu bari. sum tànk de fu mu dem demaat xam na jàmm rek. waaw loolu wér na nag olof Ndiaye day wax loolu. waaw dama ne. maa ngi lay dégg xam nga lu ma naqari yow nag. Hmm. leen rek kat naa la wax. muy ngéwal dafa nekk waaye ñi ñi mu ñi mu ñi mu wóobu yëngal parce que kii na ci kër gi. dina hmm, ci gën nee am na looy ci man. man may doomi géwél péer. waaw géwél si ndey géwél si baay. Ah. ñu naa la yow jaar ma jaajtaam jaar ma su ere jaar ma neex maa woo. Ah. xoolal dama la gisee nga toog maa kontaan ci yow. waaw wan wan wan ma loolu rek wan ma leen der waxal dara rek. loolu bàyyi Samba. ñëwal ku ñàkk sa yaay jël ma. ndeysaan sa nijaayoo may may dollar du la tee daagoo. ñëwal coro sa yaay jël ma. bilaay sa nijaayoo may may dollar du la mu yet coro bàyyi sa yaay jël ma. te ma laal laalil ma laal boo laalee da gën a neex. loolu bàyyi Samba. ji kat ku yaay jël waaw waaw maa nijaayoo may may dollar du la tee daagoo. xale bi ci koñ bi. ñëwal bu seyeeg baa dollar ndeysaan. maa nijaayoo eh, eh, eh, sama kër gi mbefe laa la may fas may saf. mbefe laa mbaw mbaw rek. ay nee na dimbali ma ngir yàlla. waaw papa nee na mën ngaa de. eh yow tëjal ma sa ngaam yi nee na damay déglu ma nee na bul fàtte ne dëkkandoo dafa maak waaw kër gi yow rek yaa fi nekk mbab mbab mbab mbab mbab nee na dëkk yodoogi doomu géwal sa sa gin bi saf génnu bay dama ne nga déglu ma yow xamul loo bëgg yow jaar ma ni sa taat bi saf tàppam ñebe aja romb ni na gaaw yow ku ñàkk fayda ndax yow mhm. xam nga ne kër gee mhm. lañ fa génne xam nga ko nekk fa lii nga fi nekkee rek heure boo xëyee ruqu xar fu ne nga nekk fa di mbaw mbaw mbaw mbaw di tëgg di parke ñi bañ génn ñu fa loolu nag du am fii dama ne nag yow nag wéy ji nag yaa may bëgg moom nag ndax heure wax da nga may tiim te damay taxaw nag geer balaa neex ñu jàkkaarloo man de xam nga xam nga ne doo ma attaqué attaqué monsieur missile sol sol laa def yow waaw doo ma tàkki sa te man moom wax ji du gudd jëru muy gàtt da ngay mën a yaru nga génn ci biti man moom foofu laay nax doo génn doo làmm sa poos yow da nay moo tax amoo jabar yow nay tax amoo jabar si mbedd mi laa toog dégg seen ngeen mel ne ku mag waa koñ bi lii la nii njëwalem ko forox gi mu jaay da koy ba mënuñoo dem fee ban génn ñu ma ñëw luy waat fii mu ñëw fi yor fi xamul tabala la yor xamul lu mu yor ne ñaawaay mu rëbee bëgg maa sonal ak mbab mbab mbab du ma ko defaat bi ñu may génn ah, nijaay nee na sama nijaay nag tey lim wax dëgg la ah. dafa loo àq la am baat lii ngay def yow kon man bañ dalee ànd sa yëg rek laa ma sox ah, dëgg tey rek laa ma sox dëgg romb ni yow nga naan ma ay ngay war war rek yow seen mbir dinaa ko lijjanti lii dafa ñaaw déglu ma déglu ma rek déglu ma lii dafa ñaaw waaw ba nga dalee sëy ba léegi waaw tey nga ma sox dëgg waaye kaay kaay kaay kaay kaay yow dama takki jabar yaa ngi manqué di dama est-ce que këf gaa ngi dox ba nga dox eh taxawal dama takki mo ah. <laughs> loo gis yow loolu gisoo dara ñàkk nga fay rek toog gisoo dara dama takki gisoo dara dama takki jabar ah, yaa mën a sóob takkal waaye kër gi moom maa yee duñ fi toog da ngay mën a yar nga génn ci biir dama ne fa laay mag yow yow boo xamante ne waaye bopp sew bi la xaj bay mbaw ko xamul xamul la xaj bay mbaw man këf gii kii këf gii këf gii këf gii daal Ah, aywe ji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene doomi giw la ah, yow yow ñii am ñii amul. waaw hmm. ceeb bi day farfarloo laa ceeb bi daal am na farfarloo. farfarloo waaye daal lu ci waaye defit hmm. nay leer. Hmm. loo seetlu tey seetlu waat ëllëg. Ah, waaw waaw. ceeb bi waxutuma waxi ceeb de. loo wax xoolal fee. seexu naa si ñu ñu doon. jànk ndaw. disket disket jànk ndaw jànk. taxaw leen baal leen baal leen ñu rek sëñ Mbaye Diagne borom jënd baal leen ñu de. bal leen ñu ci woo gi ñen woo dérangement beeg yooyu yëpp. ah. jàkk ndaw. cey na ngeen def. lu mel nii. Hmm. man mosuma koo gis. yaakaaroon naan sax amul. kenn mosu koo gis. léegi. Hmm. ñun dañ ciy kilifa. Hmm. te taxawaayu mbedd xam nga ne mag du ko def. surtout da ngeen ñu jox loolu xale yi wax numéro. ñu jàpp leen seet si leen. yéen exagéré ngeen def. lu ah. exagéré yow it. ak seen i magasin ah. tamit. yomb na de. dama ne jànk ndaw. Mhm. mat lay def fu mat. am na lu ñu gis ci yéen ba bëgg leen. te du mbedd mi lañ koy waxtaanee yéen. waaye jeex jox nañu seen numéro rek ñu seet si leen. mais loolu du benn problème. waaw waaw fii numéro bi. waaw euh, euh, euh, wa ko ñu këru ko téléphone bi dañ ko bàyyi fee waxal rek. danga may jege tuuti ma wax la numéro bi. Mhm. Mhm. bàyyi wéy. ko fàtte da ñu si jot. du ma ko fàtte. jël naa ko léegi xam nu ñuy def lii. Eh, eh, da da ngeen ñu si toggal ceebu jën rek. waa jéggal ji eh, déglu ma ngay mm. dër nii. ni ngeen ñëw nag bu togg ceebu jën de. togg ci mbaxal mu sap sap am biiru xar. bilaay jeex na ay géewal la mbaax yu bëri. ay géewal la yàpp lay lekk. ak limon ji mais dégg la mbaax yu bëri. da ngeen nekkoon ci yoon. non. ban ay 30 000 lañ laal de. baax na loolu duñ bàyyi coono de yow tamit. duñ leen sax dañuy bay we ji ñëw na borom vélo bi ñaw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw laa bay we ji sa kër gi neex na lool waaye xoolal ndeene moom géwél moom moo ko bay we ji ñëw na borom vélo bi ñëw na ndene ndene ñëw na ndene domi giw laa